dëkk bu sell bi di Touba njàngum alxuraanul karim luñ fi saxal la ci ay daara yoo xam ne kenn mënul leen ci njàngale mi bokk na ci daara yooyu daara alimul xabiir di daara joj sëriñ fàllu si moom moo ko sanc ci ndigalul waajuram di sëriñ Mouhamadul Moustapha si ci atum 1981. mi ngi sosoo ci daarul ci yéen ci 28 bi ci 1981 ci ndigalul sëriñ Moustapha si. radiyallahu anhu bi nga xamee ne moo waajuru sëñ Fàllu mi ñoo bokk waajur wu góor sëñ Malick Bassine si mooy se mooy waajuram moo ko sampaloon ci 1981 fii ci Thiène ci Daarul Minan mu nekk fa di jàngale alquran di yare ci la nekk ci la nekk musu fa musu yitteem yëpp nekk ci jàngale ak yare must am benn yitt ba jamono yi mu fi nekkee sax heure bu daa génn di seeti ay bokkam di dem ndar di seeti mbokki waajuram yi sax day bàyyi ba nga xam ne effectivement la mu door a dem waaye bisub jàng sax mosu koo nangoo génn ci booba te boobu mi ngi faree ndaw fi la nekk ba 1995 ci la sëñ Moustapha Sy radiyallahu anhu daal di wuy ji boroomam. yitteem yëpp moom Serigne Fallou si mooy jàngale alxuraanul karim ak yar ci ni nga xam ne noonu la ko lislaam jàngalee jamono bi muy door liggéey bi nag métti na lool ci moom. waaye teewul mu sax ci rek nekk ci. bi muy jàngale taxut moyen yi mel noona ndax booba ñu ngi jàngee ci garab ci ci yéen nga xam na day dem ba bu tawee kër yi jàkkaarloog daara ji fa la ñuy dem ci foofa ay bâtiment ya fa nekk fa la ñuy la ñuy dugg ngir seelo too bi waaye booba ñu ngi jàngee ci garab ci la nekk mosu caa jóg nekk fa ba mu jënd mu defa defar fa am mbaar te mbaar mooma bi mu koy tàmbali di ci dox. ànd ko taaw Sëriñ Moustapha si muy Sëriñ Sëriñ Modou si nee na biñ ko lijjantee ci la génnee ñett seng ne ko ñett seng yi de maa ko dencoon ngir man koo tàmbali liggéey bi kon kooku wanoon na yéeneem ak euh, fam fam fam bëggoon a àgg booba fala doolem dooleem toll ci la génne ñetti paquet seng mbaar mooma ca la maanaam foofa la ko def ci yéen tàmbale faa jàngale kon mi ngi ñu ngi tàmbalee ci garab ndax fa lañ daa jàngee ci la jógee mbaar ma taxaw mu nekk ca ñu nekk ca ñu nekk ca ba 1998 moo xamee ne alxuraan moom heure boo koy jàngalee rawatina nga yor daara dafa nekk continuité lu war a continuer la. mu xamee ne kon war naa wut barab boo xamee ne bu gën a yaatu te booba fam nekkoon di ci yéen am na ay néeg am na ndox am courant am téléphone nekk ci xolub dëkk bi. ci atum 1998 la Serigne Fallou si bàyyeekoo ci Daarul Minaan ñëw tuxu fi nga xam ne moom moo di ci quartier Ndaamaatu lu soriwul quartier Touba Lansar bi mu fi tuxusee it njëlbeen gi météo na lool ci moom ndax pàkkum neen rek la fi fekkoon waaye terewu ko wéyale njàngum alxuraan mi nga xam ne moom la dooroon ca Daarul Minaan sëriñ Habibu Rasoul si booba sëñ Saalihu radiyallahu anhuma dégg ko ko dëkk bi moo ko lijjantil barab bii fii ci ndaamaat muy fi ñu nekk nii de wax ak yéen te barab bi barab liñ xamoon ci kuy tuxu ci barab mooy barab boo fay dem da nga fay fekk dara waaye moom barab bi bi muy ñëw fekku fi dara pàkkub kese la du jàkk ji du daar ji ñu wan ginnaaw dara nekk fi woon pàkkub kese la nga xam ne bi mu ñëw ak waranteeroom rek la am xëy rek gaare ab camion sëf ci ay bagaasam ànd ki dongaam ñëpp ñëw ci barab bi bi mu ñëwee itam lim fi njëkk def mbaar ma nga xam ne moom la defee woon ci yéen moom la xëy di ñëw samp ko fi ñu nekk fi di fi jàngale taw bi nga xam ne day dem bu bu tawee moom njowaan gi mu tëdd ndox mi day day wàcc ba day rogalaat ci kawam waaye musta découragé wu ci la nekk. moom nag ku amoon yitte ju kawe la ku amoon yitte ju kawe la ndax yitte ju kawe ji weesuwul fekk barab boo xamante ni yow dara nekku fa. nga samp fa mbaar lu dul ay garab garab niama nga xamante ni ci la ci la ci la tàmbalee njàng bi ba ba fii mu yëg si fii donga yi ànd ak moom ci li nga xamante ne maanaam mooy liggéey bi nun ñi foofu la loolu noo ko dund ànd ak moom muy taw ci sunu kaw di ngelaw euh, suuf mbaar mi amul lenn loo xamante ne maanaam lu fa nekk la waaye loolu lépp sëñ bi moom lii yitteem rek mooy fexe ba donga bi li nga xamante ni mooy li ko fi indi mu yóbbaale loole muy njàngam alquran akub yar te daana wax ne fii daal képp koo xamante ni nangu na fee toog li nga xamante ni mooy liñ bëgg moom di ko am ci dogalu suñu borom subhaanahu wa taala fii ñu taxaw ji penc mi bi fi ñëw dara nekku fi woon jàkk ji mujjante la nekk baraakub seng ci lañ ko dindi mu taxawu jàkk ji bam mel nii daare alimul xabiir mi ngi dox bu baax a baax ndax jóge na ci jamono yi nga xam ne moom la doonoon ay zeng ba ñu tabax ko ci tabax bu mucc ayib li fi jàngee jamono bi ci ay ndongo ñu ngi leen xayma ci téeméer ak ñaar fukk ba ñu taxawalee daara ji ak léegi li fa jot a mokkal alxuraanul karim xayma nañ ko ci juróom-ñeent fukk ak juróomi ndongo. yàlla dogal na mbooloo mu baree bare jaar nañ fi ñu mokk alxuraan ba bind kaamil ci lim bi nga xam ne jàpp nañ ko mu ñu mokkalee fi alxuraan ba bind kaamil toll toll nañ ci quatre vingt personnes. am na ñoo xam ne moom jaar nañ fi mokkalee nañ fi alquran waaye jotuñoo bind kaamil ñooñ seenub lim moom tëkkuñ ko waaye mbooloo ma ba daa daara ji ba fi na léegi am mbooloo fi nekk li fi toll mën na cent vingt personnes yu teg te boo gisee mu limité ko noona mooy xam na ne daara am na foo xam ne bu fa lim ba tolloo taxawaay ba ak njàng ma ak saytu ko day xaw a jafe moo tax mu mu limité ko te daara ji ubbil na ko ñëpp nit ku daal képp ko xam ne ñëw nga ci daara ji ta fekkoo daara ji limité baare su boobaa moom dana la jël. daara ji mi ngi doxee ci ñeenti façon soo ñëwee moom waajur wi la ñuy laaj nu mu manee su dee koo xam ne dana sama sama doom damaa bëgg mu internat ñu defal ko internat fekkee koo xamee ne dafa jege ne damaa bëgg sama doom di dem ak a ñëw muy dem ak a ñëw fekkee koo xamee ni itam doomam dafa sori te doole matiwu ko itam bu bu bu xëyee yalwaan yi waaye terewul ñi ñuy jàngale ni ñuy internat ak ñi ñuy jàngale ñi nga xamee ne ñooy xëy di yalwaan ñëpp ñoo bokk programme bi benn la te yalwaan ji itam sunu luñ ci kenn nit ki da ngay xëy dem wuti ndékki balaa 10 heures nga ñëw jot jàng bu une heure ñu wàcc 3 nga gont ba 6 nga wàcc su maraxee nga ñu jàng ba gee bu njëlee ñu jóg 4 heures jàng ba fajar programme bi daal moom kii kii fay ak ki dut fay ak ñëpp ci marché yemal. ñi nga xam ni ñoo jotoon a jaar ci daara ji ba mokkalee fi alxuraanul karim seede nañ ni sëriñ bi yemul woon rek ak ñoom ci njàngaleem alxuraan gi waaye da cee boole woon yar gu mat sëkk ak leen ci àddina loolee mooy sababu tey ji fépp fu ñu dem ci àddina bi rek ay royuwaay lañ fay doon. ki nga xamante ni maanaam da ngaa ñëw xàmmeewoo alif xàmmeewoo baa mu dalal la ba jàngal la ba nga yar ba ba ba nga mokkal alxuraan beqi alxuraan bindu kaamil ñu topp ko mu wér péng nga dem jébbali ko say mbokk waaye loola du ca yem waaye dalay boole ak ab yar boo xamante ni maanaam euh, macha allah te daana wax ne. njàng mi baax na lool waaye yar bi moo ko ëpp solo ba tax na loola itam daana ca taxaw taxawaay bu mat sëkk mu ko daan jaral lépp itam bépp donga boo xamante ni maanaam daa nga fi nekk di wéy ci ay ndigalam rek lépp loo xamante ni maanaam euh, digal na la ko mu tere la ko loola moom boo fa jógee li nga xamante ni maanaam mooy sa sa sa saw nekkin foo mën a nekk fu ne maanaam ab royukaay ngay doon ba tax na ñu jàngal daana ñu yar daana daanañu yee bu baax a baax a baax ci anam yu wuute nag ci anam yu wuute kenn ku ne nag dina la féetale ci anam gi nga xamante ni yow jàpp ne la yow gii mooy gi nga mën gën a gën a mane waaye nag teewul lépp moom day matale ci ci daara ji bu dee ci wàllu liggéey noonu daana lay yee di la di la di la wan yoon wi nga xamante ni maanaam moom lay liggéey ndax moom dafa bëggutoon daray tappale lépp loo xamante ne maanaam moom da ko daan def da koy def ci ci ci ci ci qualité ci qualité nim la daan jàngale noonu la daan yare noonu la la daan yee lay liggéeyloo itam liggéey bi noonu ba képp koo xamante ni ku ñëw ci daara ji sax di fi liggéeylu sax maanaam ci kaw liggéey boobu yow dongo bi dalay yee ci ni nga xamante ni noonu lay jëflante ak moom jamono bi nag am na ñu bëree bëri ñoo xamante ni ci daara ji lañ jot jaar ba mokkal alxuraanul karim ñu ngi ci ay corps de ci yu ci biir réew mi ba ci bitim réew ñu gënee si daara ji nag bëri na ay catégorie maanaam bëri na ay xeet yoo xamante ne yu wuute lañ xamante ne ñëpp ci daara ji lañ leen defaree defar gi ñu leen defar bi ñu leen defaree ba bañ bañ bañ bañ baax si lañ génn ñi si ëpp nag nekk ay defarwaat ndax daara ji macha allah ku ne xam na li fi génnee ci ay sëriñ daara ñoo xam te yàlla def na fi leen jàngee alquran ba mokkal biñ mokkalee génn fi samp seeni daara di defaat ay résultats yu wuute. ci mboolem région Sénégal yi wala yi si ëpp ci région yi am na ay daaraam yu fa nekk yoo xamante ni si daaram ji lañ bàyyi ko kon loolu muy nekk lu am solo loo xamante ni chaque année ñun dañuy dañuy jaxasoo ak ñoom dañuy dégg seen i yi yu ñu def ñii dinañ lool ay fukki donga ñii di def ay conférence yu mag ay donga yoo xam dañuy mokkal alxuraan bind ko comme niñ ko tàggatee woon ci daara ji ñoom noonu lañ koy defee. ginnaaw loolu tamit am na ñoo xamante ni defar na leen ñu yëngu ci wàllu continuer seenum jàng di jàng wàllu xam-xam nga xamante ni moom soo fi jógee du la bàyyi si alxuraan ji jir ndax dana fexe ba xam bi. nga góor ci bu baax a baax ba am na ñu fi génne ñii ñi ngi dem ba àgg université ñi dem nañ ba France am na ñoo xam ñi ngi université France di jàng am na ñoo xam Maroc lañ génnee am na ñoo xam benn ña nga Maroc di jàng ba te université bii ñu si nekk si Ndakaaru mu université Anta bi am na ay membre yu fi nekk yoo xam ne si daara ji lañ jógee ña nga fa rawatina am na ñoo xam ne ay bindikat parce que am na ñoo xam bind nañ ay téere te si daara ji lañ jógee nga xam ne boo demee bibliothèque Mouhamadul Basir bi da nga fi fekk téere yoo xam ki ko bind si daara ji la jógee ni boo fa demee da nga ko fekk ay téere yoo xamante ni ñi ko bind si daara ji lañ lañ génnee kon daara ji nekkul ne day defar nit ki rek bàyyi waaye sëriñ bi moom ab defarem daanaka da lay topp ba keroog ngay du la bàyyi mukk-mukk ndax boo fi jógee teewut mi ngi sa ginnaaw di la encouragé di la soññ nga xam te daare ji am na ñu fi jógee ko xam te ni am na doctorat jóge génnee na ci daara ji nga xam ne jamono ji mi ngi doctorat mi ngi jànge ba France am na ñoo xam ñi ngi France di wàcc seen master ñu am nañ licence kon yooyu yëpp am na ci daara ji kon am na ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu commerce nga xamante ni daanaka am nañ tuut loola wax ci wàllu commerce am ñoo xam ñu ngi def import export di génn di réew mi di andi ay marchandises kon sëriñ bi bàyyiwul dara daanaka façon ku nekk defar na am na ñoo xamante ni métier mu bëree bëri ci daara ji ñoo xam ci daara ji lañ génn ngi ko yor nga am na ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu kërooré am ñoo xam ñu ngi def te ñëpp am nañ a baax te ngi ci liggéey liggéey yoo xamante ni yu am solo la kon daara ji ñi fiy génnee nit lay defar doomu aadama ci boppam ay insaaniya bu mat kaamil lay defar ndax bëri na ñoo xam ne métier bopp yoo jël ci daara ji sëriñ bi am am na ko ci ay dongam. nga xam te ne tey ji bu ñu soxla woon dara ci biir daara ji mën nañoo waxtaan ci biir daara ji ba xam kenn ku nekk lam cee def ñu mën see cité ay tur yu bëree bëri ku mel ni sëriñ Abdul Xabir mi nga xamante ne moo jiite liggéey bi yàlla def na fii la jàng alquran ba bindee fi Kamil ba dem Mourtani yàlla def muy yëngu ci jàng xam-xam ba nga xamante ne fànn yu bëree bëri ci xam-xam jàng na ko ba am fa ija bañ ijaasaal ko fa mënees na kaa tudd moom mi nga xamante ne mooy kilifa mbooloo mi ak mel sëñ Abdul Ahad si moom tamit mënees na kaa tudd moom sëriñ moo sëñ Abdul Xabir moom doomi sëñ Moussa Samba la kon daara ji amoon na lu nekk amoon na ay kilifa doomi kilifa ñëpp amoon nañ fi am na ku yor suñu Abdoul Ahad moom tamit doomi Serigne Modou Khady si la yàlla def na dem na ba Mourtani jàng fa ba am na fa master xaw ma licence doog a ci réew mi ba mujj mu nekkaat ci di jàngalewaat ci di jëriñwaat réew mi bu mel ni Serigne Modou Dieng Mbacké doomi Serigne Baara la moom Serigne Modou moom tamit ku yàlla la jàng na si daara ji bi mu fi génnee jàkkoon ab gëstoom ba dem na France ba jàng ba am na ba ñibbisiwaat ci réew mi suñ ki ñoo xam ne Mouhamadul Amine Mbacke moom tamit ci daara ji la nekk moom tamit doomi Serigne Sidi Mbacke Landang la moom tamit kilifa la comme ñëpp xam ci daara ji la génnee yàlla def na mi université di jàng su newul master mi nga war a def licence am ak ku ñuy wax Basirou Sall moom tamit ci daara ci daara ba léegi mi ngi université comme daara ji ay cadre yi cadre ñoo fi doon lim duñ duñ mën a jeexale am na ku ñuy wax sëñ Mokhtar moom doomi sëñ sëñ Basirou mu sëñ mu la di ci université yooyu am ku ñëw suñu Xaadim Mbàkke moom tamit mi France di jàng te am njàngam tamit xam naa li ci des bëreetul pour mu noppi kon daara ji ci ay cadre ndax ñoom liñ xool ñi nga xamante ñoom ñooy jàngalekat alxuraan yi chaque année ñu wax le diw sàngam moom li muy génne ci ay kaang waxuma la biir daara yi waaye ñi mu defar li ñuy génnewaat kenn xamul nu mu toll suñ ci ñi nga xamante ñooy wàllu commerçant yi nga xamante ne de di dem ak dikk am na ñoo xam te nekkuñ ci réew mi génn nañ rew mi ñu ngi ñu ngi tukki ay moodu moodu daara ji daal suñu la doon gàttal ci gàttal bëggu la résumé daara ji dañ daal daara ji lu nekk génnee na fi ndax wàllu maçon wàllu korélé waaye polomeeg yëpp te ñoo ñëpp nag dañoo dem ba am si li ñuy wax xibra dañ ci am ak ak expérience bu mag ma ci seen liggéey kon daara ji lu nekk génne na fi waaye ñooñu ñëpp nag ñoom ñu ngi leen di soññ te di leen woowaa ci liggéey bi ndax ginnaaw xam nañ ñoom ci liñ nekk mooy jàng ak jàngale te am nañu ay loo xamante ni mboolem histoire bi jaar ci daara ji yëpp ñu def ko ay na ko ñoo Sëriñ Xaasim Mbàkke dama kaa fàtte woon moom tamit yàlla def na ko borom xam-xam la te bind na ba génne na ay téere yoo xam xamante ni yenn yi soo demee bibliothèque Cheikh Mahamadou Basir bi ci Daaru Minam da nga ko ci fekk Sëriñ Abdou Lahad Si moom tamit ma nga fàtte woon moom tamit am na téere yu jot a génn te am ay xalaat bind ay téere te yëpp génn génnagut kon daara ji lu nekk génnee na fi. mbooleem ñi nga xam ne ñoo jot a jaar ci daara ji dañoo sos am mbooloo moo xamante ni seen yitte yépp mooy taxawu daara ji ci mbooleem loo xam ne da koy yittewoo waaye gën a ñoŋal nekkinu ndongo yi xam ne ñoom ñoo fiy jàngee. mbooloo mi nag ñu ngi ko sos ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu Serigne Fallou mi nga xam ne mooy kilifay daara ji. ko waxee Serigne bi rafetlu ko lool daan na ah kenn rek laa ci yaakaar ginaaw bu yàlla jàllee muy yéen ñi nga xam ne yéen a fi jàngee. daal ci teg rafet daan ne daara ji moom dama ko yilif jiitu ko waaye ëppale wu ma leen ci man ak yéen ñoo ko bokk kon bu ngeen xalaatee lu mel nii ñun de suñu xol da ciy sedd waaye jox nañ leen ci ndigal lépp lu ngeen xam ne bu ngeen ko defee rek daara ji dana gën a yëkkatiwu na ngeen xam ne defalu leen ma ko waaye seen bopp ngeen koy defal mu jot ñu dajale seen i juróom seen fukk di ko jox sëriñ bi waaye sëriñ bi di ko diñu ko defalaat ci biir daara ji loolu nag gën a tëbb mbooloo mi gën leen a sawarloo ñu gën a takku gën a boole seen xalaat at mu jot ñuy gën di nos liggéey bi di xool nan la ñuy def ba daara ji li nga xam ne daara dana koy soxla te kenn mënalu ko ku dul doomi daara yi xam ñoo génne daara ji ñu di ko defal ci loolu lañ liggéey ay at yu bari ba yàlla dogal ñu yegg si fii tey ñu yegg si bokk na ci yi nga xam ne ñoom def nañ ko mooy at jot daanañ fi daje ab siyaare la ci jiitu mooy ñu fexe ba ñi nga xam ne jaaroon nañ fi te gëj a gisee ak jamono ji ñu daje fi mu nekk ab retrouvaille boo xam ne dañuy dajawaat ñu ñëpp gisantu suñ biir waaye nammi konte saafaxonte gisante waat ba déwén ak jàmm loolu ci objectif yi ci bokk la waaye bokk na ci yooyu it maanaam ñëwaat occasion la ci ñun ñëpp ñu gisante waat sëriñ bi mën a siyaarante ak moom mën a saafaxante ak moom mu sànni ñu ñaan waaye ñaaxaan ñu ku ci nekk te la nga nekk nga gën caa góorgóorlu boobu loolu rek bu du woon yooyu rek lii rek ma jar nañu sos mbooloo mi waaye ñu bu ko defee mu doon bis boo xam ne nag ku nekk ci ñun da ngay dajale li nga am ñu boolante ko teg ko ci loxol sëriñ bi waaye sëriñ bi jël loolu boole ko li am defalaat ñu ko ci biir liggéeyu daara ji mu mel ne mbooloo la moo xam ne biñ ko sos ak léegi yaakaar naa def nañ ci ay résultats yu bëree bëri ci ay liggéey ci biir daara ji bokk na ci résultat yooyu daa nañ def ay di fexe ba mbaar am fi ànd koog sëriñ bi daa nañ fexe tamit bi nga xam ne sëriñ bi sumb na projet bu rëy bi xëy na ki wax ci wàllu structure daara ji dana ci ñëw ànd nañ moom sëriñ bi fexe ànd ko moom di ci def suñu kéemtulaay kàttan waaye di ko woote ak di ko defet mbooloo meet ñu biñ ko xasasee doxal ci ay at ba ñaari at ba ñetti at ñu ne comme mbooloo la nag te mbooloo yi dafa bari te mbooloo buy dox war naa am nuñ koy xamee ñu ne léegi dafay jot ñu xalaat nan mbooloo mi di tudd ñu xalaat ci xalaat ci xalaat ci ba ñëpp dëppoo ci na léegi dañ ko tuddee jamaatu ahbabil quran li taawun wa tamassuki bi diinil qawim mu doon woo xam ne day dugal yu bëree bëri boo ko déggee da ngay wan ne ñi fi daje ñoom ñëpp ay mbokk lañ yoo xam ne alquran moo leen boole waaye loolu lépp nag ñu teg ko ci liggéeyal yàlla ak yonante bi waaye nag te dëppale ko ak doxalinu Serigne Touba moo tax ñu toftal ci baat yooyu muy wa tamassuk bi diinil qawim yàlla dogal it ñu fa wut ay locaux ak ay yëpp yoo xam ne mbooloo dana koy laaj muy structure bépp loo xam ne mbooloo mu dox rek laaj na ko fexe nañ ba loolu lépp ñu am ko ci ay këyit ak lu mën a doon nose noonu ba nga xam ne tey ëllëg suñ bëggee amaat yeneen yeneen jàppale ci fu mu mën doon buñ jébbalee këyit yooyu yaakaar naa daañ ci mën a taxaw ndax lépp lu sëriñ bi sumb rek ci daara ji moo xam dafa jëm ci liggéey wala mbaar wala lu mën a doon wala setal wala bis wala lu mën a doon rek mbooloo moom ñoom ñoo ñoo takku ànd ko sëriñ bi def ko def ko ñu koy def nag ba yàgg sëriñ bi xam ne mbooloo mi seen jubluwaay ak seen bëgg-bëgg du dara lu dul jëmbali daara ji waaye taxawu seen rakk yi fi ne ci biir daara ji bañ gën a mën a xemmeem daara ji man fee toog mu jël gën leen a jox confiance nag gën a jël liggéey bi yëpp bàyyi ko seen lox nga xam ne tey fii ñuy waxe sëriñ bi amut lenn loo xam ne xam na ko ci wala làmb na ko ci wala def na ko ndax loolu dafa dem ba gis ne confiance bi am ci mbooloo mi doy na ko sëkk mu lépp jébbal leen ko. mbooloo mi am nañ ay naal yu yaatu yaatu yoo xamante ni moom lañ bëggal daara ji te fas cee taxaw ba réaliser ko ci fànn yu wuute nag waaye at mu jot ndaje mi nga xam ne ñu ngi koy amal dajale mboolem ñi nga xam ne dañoo jaaroon ci daara ji bu ñëwee daañu dajale lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay jumtukaay yoo xam ne ndongo yi dañ ko yittewoo ñu indaale ko. mu nag mbooloo dipp ñu taxawalee loolu ba léegi résultat yu am solo ci daara ji ba nga xam ne ren yàlla yàlla dogal ñu def ci ay innovation yu am solo nag yoo xam ne tey yaakaar naa moom ku fi ñëw da nga xam ne mbooloo mi moom dugg na ci ati yooyu ñuy wax ndax ñi fi daan ñëw daaw bu ñu a baax bokk yees mooy dañoo ne ñun kat dañuy ñëw ci daara ji di jébbal sëriñ bi di jàppale ko di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ci lañ ko fekk mu mel ne daara ñun ñëpp jaar nañ fi xam nañ tumuranke gi am mu dox ay ay xale suñuy rakk ñenn ñi di suñuy rakkaat ñenn ñi sax di suñuy doom ñu ne ci daara ji di jàng ñu ne lu tax léegi ñun bu ñuy ñëw duñ leen fexe ba indil leen loo xamante ne si dañ ko ci dugal mu nekk wàllu social mu xam ne day jëm ci sëriñ day jëm dañ koy jébbal sëriñ bi moom mu jëbbalaat ko ndongo yi loolu nag bu ñu ci ñu ne kon léegi ni ñuy def mooy duñ sas kenn leen waaye lépp loo xam ne daal kuy ñëw ci daara jàpp na ne ab dongo dana ko soxla booy ñëw na nga ko indaale tàmbalee ko ci daal bu muy sol yére bu muy sol moo xam piliweer moo xam gaal moo xam saabu moo xam oma loolu yaakaar naa tey biñ ko tey tey mooy premier édition bi maanaam yo tey lañ ko njëkk a mooy innovation bi tey biñ ko dajalee yaakaar naa am nañ ci ay bali fëgg jaay loo xam ne yaakaar naa bu bu mat war naa mat fukki bali fëgg jaay yëre yi nga xamante ne si ay nit ñoo ko fi indi ci diggante ay yëre góor ak jigéen kenn xamut nu mu toll ñu dénk ko commission boo xam ne moom mooy saytu loolu maanaam lu fi nit indi ci wàllu yooyu danañ ko xool li lu ci ne ñu rancé ko fa mu war a jëm ñu xam ne lii góor la lii jigéen la lii lii la lii la maanaam ci ay paquet saaboo ko omo loolu wax dëgg yàlla mënee su koo xayma ndax ñi ngi ñi ngi noté di bind ba léegi waaye li ñu amagoon rek wax dëgg yàlla dafa kawe njor la ñuy ñëw ko loo ko tàmbale lu mel noonu ndax dañ daan ñëw rek saafonteeg suñu rakk yi bi toog waxtaan soññante daal di tasaaroo ñu ne nag léegi kon war nañ cee dugal loo xam ne dañ koy jébbal sëriñ bi mu jébbal ko suñu rakk yi loolu tamit bi ñu ko defee gis nañ mbooloo mi bëgg giñ bëgg liggéey bi ndax mbooloo mi maanaam saa yoo yëkkatee dara mu jëm ci daara ji maanaam ñëppay maase rek jëlandoo loolu ci yow daal ci gàttal maanaam association bi daal li tax ñu taxawal ko du lenn lu dul nu ñu def ba daara ji fa sëriñ bi bëgg mu àgg fa mu àgg fa te ñu ànd ko ak moom gunge ko ci xool ko te seriñ bi moom boo waxtaanee moom da nga xam ne maanaam yéene yi am ci daara ji ni daara ji mel nii sax yéene yim ci am ëpp na ko te projet yooyu mu wax nag ay million million moo koy def te loolu yaakaaru ci kenn ku dul ñun ñi nga xam ne ñoo génnee ci daara ji ndax dalaa wax ne balaa sama sama coonaa jeex de yàlla dogal ngeen jóge fi ba màgg te fi mu toll nii bi ñu ba jóge fi ba yàlla dogal ñen ñi man dara dellusi tey jii moom la gën a tàkku tey la gën a naal yi nga xam ne nag moom lañu fas yéene réaliser ci daara ji yaatu na lool ba tax na mbooloo mi nga xam ne ñoo jot a jaar ci daara ji ñu ngi ciy woo képp koo xamante ni jëf lu baax ñor na la rawatina njabootug waa kër Serigne Touba ji nga xam ne jot nañoo jaar ci daara ji. dañuy lancer appel di woo mboolem ku mas a jaar ci daara ji rek ak koo mën a doon rawatina nag ñi nga xam ne dañ leen tuddee ay doomi kilifa muy njabootu waa kër Serigne Touba fu ma waxee Serigne Touba rek dugg daal ne ñëpp dafa yaakaar naa ki fi ñi fi jaarut ñoo ñi njabootu suñ tubaa ñi fi jaarut ñoo ëpp ñoo ëpp ñoo gën a néew buñ doon lim tey duñu fi jug kër suñ Murtala kër suñ Masamba kër suñ Fàllu kër kër kër ñoom ñëpp jaar nañ fi kon ñi ngi leen di lancé suñu kàddu di leen wax ne liggéey bi mi ngi nii ñoom fii lañ toqee fii lañ leen defaree tey fii la seen waajur doy ba indi leen fi lu jamono xatin ñi ngi leen di woo seen ci liggéey bi luñ ci mën a jàpp ñu ànd ko ak mbooloo mi buñ dee teew ànd ak mbooloo mi baax na su fekkee duñ teewit lépp lu ñuy def rek buñ leen ko yëgalee luñ ci mën a jàppale daara jeeg ñu def ko te xam ne seen bopp lañ koy defal. ba tax na kon noo ngi euh, soññ ñi nga xamante ni ñooy mbooloo mi bu baax a baax ñu gën a takku ci li nga xamante ni mooy li ñu sëriñ si jàngaloon waaye li nga xamante ni maanaam ci la ñu yaroon li nga xamante ni ci la ñu tàggatoon muy jàngal jàng ak yaru waaye nag lépp itam dëppale ko ak ay ay ay ay teggin ak njàngalem sëriñ Touba. sëriñ Fallou si ci lii rek la nekk muy njàngalem alxuraanul karim képp ku ñëw ci koy fekk ko demit ci nga koy bàyyi yéen ñi nga xam ne jëf lu baax ñor na leen yéen ñi bëgg a liggéeyal alxuraanul karim jaa ngi daara jot mën ngeen cee liggéey bu baax a baax ci taxaw ndongo yi waaye taxawu daara ji ci lépp loo xam ne daf koy yittewoo képp ku ci bëgg a jëf numéro yaa ngi noonu affiché أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ۖ أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم